de euh, ngi tudd Babacar Sall euh, ñi ñëw teewal wa euh, ci mooy contrôle régulatrice receveur chauffeur yëpp. ñu jafe-jafe paa yi am paa un bon jour rek doonu convoqué nu nu sans droit te nit ni ñun ñooy def coordinateur bi fi nekk moom tudd Ibrahima Thiam euh, un nouveau coordinateur ancien coordinateur dafa jógee da nga ko affecté à Saint-Louis Omar Diop la woon mais coordinateur bu bees ba mu ñëwee gars yi da nga koo tapi da nga koo ger da nga koo jënd léegi lu nga ko wax lay def léegi mujj na paa yi à son côté lu mu war a décidé paa yi ñoo koy décidé du ma ne tax paa yi mais jeune paa yi mooy paa yi ndaw yoo xam ne ñoom ñoo créé commission bi euh, bàyyi le président GIE nee na président GIE ñoo leen délégué pour ñu def ko parce que am nañ droit def ko am nañ droit def lu leen neex parce que ñoom ñoo yor pouvoir bi quoi lu leen neex la ñuy def luñ sa ñoom luñ bëgg la fi am quoi ba nit ki du ko jox àqam at waree fam quoi lu leen neex la ñuy def ñoom daal loolu bëgg seen waaw la ñuy dox boo mënul après na ñoom bàyyi la ku leen ñëw di leen nettali di leen wax ñoom kooku la ñuy mën a nekkal boo mënul après yow nu bàyyi la quoi sa liggéey bi demeewul noonu ñun contrôle noonu liggéey te contrôle boo xoolee danger kese la parce que dañuy contrôler ay clients tey ne xeexal ñoom waa ci ñu kar la affaire yooyu feeku leen dem police ba affaire yooyu parce que gestion transport moo demee noonu coow kese la chauffeur yi da koy raconter receveur yi aussi saagante ndey surtout ma receveur yi ñoom ñoo gën a sonn aussi parce que ñoom tamit li ñuy dund day metti quoi parce que li ñuy dund euh, dañuy liggéey de 7 heures à 7 heures sa seen paiement tamit aussi jëfewul noonu daanaka aagu ta 50 000 li leen di fay mooy loolu. Euh, souffrance bu nekk nay dund si tataay ma tataay daal ñu fi nekk réseau bi boo àggee ñoom ñoo lay mën a wax li ñuy dundee exact ki nekk parce que ki nekk am na méthode bi muy dund quoi. mooy tribunal bi lépp ñoom fi ñoo ni def euh, gars yaa ni convoqué nii dem di ñëw ni euh, actuellement nii ñoo toll si communication. pour le moment parce que en mois de janvier lañ wax war naa mën a jeex mais ba tey ñoo fi ba tey jafe yi moom instant yii nii ñoo ñoon si parce que am nañ ay mandataires yoo xam ne jël nañ ko. yom na ni ñoom ñuy taxaw si jafe-jafe yooyu wa dëgg yàlla am na ay mandataires yi ñuy taxaw si jafe-jafe yi din kaasal mooy mandataires yam na ni pour travailler lan fi nekkal au niveau du tribunal aussi tamit ñoo ñuy taxawal diñ teewlu duñ jàppale eh, tamit euh, ñoon tamit seen affaires yi parce que tey justice lañ soxla quoi parce que buñ sañoon tey képp ku nekk si réseau Tata yi am dëgg am yàq élève parce que opérateur yi dañoo jël seen ma personnel bi def ko affaire familiale quoi c'est rien que du affaire familiale parce que dañoo ñëw site bu mu ñëwee dañuy formel parce que ñoom dañoo nekkoon si informel. waaw surtout ah, bu mu ñëwee dañuy dañuy def pour nekk formel mais ba tey informel boobu la paa yi nekk ba tey parce que dañuy maltraité seen personnel bi dàq la dem jël sa doom ñëw tegaat affaire yooyu quoi teguñu kenn muy dara quoi loolu la. léegi yéen lan ngeen di ci euh, wàllu yoon waaw ah, ñu ni jaabante métti na trop parce que jeune da toog pendant des mois liggéeyoo aussi tamit day métti trop si yow mais ñoon si yoon moom doonu jaabante sax am nañu yaakaar trop si yoon yaakaar ni yoon instant yi na àttee luy dëgg quoi parce que tamit euh, aussi ñoon si yoon sa yoon li ñuy xaaral mooy ma àtte que la dëgg la lan soxla si yoon ñun moom à bi tribunal bu mujjee ñëw foofu leen ma ñëw amul benn kilifa bu mujjee dem affaire yooyu parce que ñoom ñoom ñooy ma dem si ki kilifa yi affaire yooyu ji affaire yooyu quoi pour a des points affaire yoy comme ñun ñun ëpp pouvoir ba paré bu ñuy waxaale yow danaa ñun yor nañ vingt cinq millions mënoonoo jël n'importe quel avocat affaire yoy quoi.